saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ñaari écurie yu mag ya fas yéene ànd nekk benn ñaari écurie yu mag yi nga xam ne ku tuddoon làmb tudd leen ca bopp ba ñaari yu mag yi nga xam ne ku leen génne ci làmb làmb jeex ñaari écurie yu mag yooyu mooy écurie Fass ak écurie Ndakaaru le journal ba xëy fasal mooy écurie Fass et Ndakaaru fusion ku wax écurie Ndakaaru wax champion bu mag ba Kati Diop ku wax écurie Ndakaaru wax champion bu mag bi nga xam ne lim def ci làmb kenn dootu ko fi def muy roi des arènes Yaxya Diop Yékini ku wax écurie Fass wax Père nga xam ne ñoo ub làmb fas yéene nañoo doon li olof di wax naan mbooloo mooy doole écurie Fass ak écurie Ndakaaru dégg nañ ko ba loolee moo waral ñu booloo doon benn ñaari écurie yu mag yooyu ku ci nekk tolof-tolof ya nga nekkoon a waral ñu booloo doon benn bu dee écurie Ndakaaru gannaaw ba fa yaxee jóob Yékini jógee Malick Niang jóge fa ba léegi écurie ba day nelaw bu dee écurie Fass ñoom jaloore yañ nekkoon dafa xaw a wàññeeku ba néewal leen doole ci la Khalifa Dia manageru Gris Bordeaux am xalaat booloo nekk ba la mu xamle mooy bi ma yégee bi la fusion sama woykat bu ko defee Gris Bordeaux ay rakam ya nekk Fass ak rakam ya nekk Ndakaaru booloo doon benn liggéey jëm ca kanam moom Moustapha Guèye ma wax loole am na leneen lu mu yëkkati waa tegaat ko ci loxoy sunu lam combat ba war dox ci diggante Modou Lo ak moom le deuxième tigre de Fass xamle na ne Modou jot na avance moom Moustapha Guèye deuxième tigre de Fass collaboration ak Luc Nicolaï kenn dootu ko nattable li ni nag moo waral bu Moustapha combat ak fan yu néew combat Modou Lo Ama Baldé ci am lu leer nañ rax ca doole li ci ay fan yu néew Modou Lo dana def face à la presse bu ca noppee Ama Baldé moom i dana def face à la presse bu ko defee ñu décliner suñu feuille de xam fan lañ jëm kañ la tëgg combat beeg naka lañ koy tëgge ñeneen ñi bëgg xam fan la jëm ak naka la ñuy naka la ñuy mooy équipe seen ak bu bees réglé ko une bonne yi war nañ koo lijjanti ñu xam ñoom ana fan la ñuy féete âge war nañoo xool ndax danañ ko yokku wala déet ñaari mission yooyee nag la sunu lamb jàpp ne mooy xaar équipe bu CNG bu bees bi fa nuy jeexale mooy ca tournoi bébé luye idaali ñi ngi fas yéene taxawal idaali loo def mu ne lu fi kenn defagul moom laa fi fas yéene def gone yi nga xam ne ci combat njëkk yi képp lañ leen féetale ñoom laa fas yéene dajale waral ma ne faw ma féete ak ñoom defal leen benn tournoi ñëpp xam seen manin jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah